li xew nag bari na dinaa ci garal ay kàddu waaye alaaji Omar Ndaw alfaruquddin xalifa Cheikhu Tidiane bu mag boobule dafa mbokk mu génnoon àddina ñu suli ko ba indi ko biñ ko sulee ba ñibbisi ci kër gi nit ñi toog ci ronoom na ko ndaw waare ñu mu ne déedéet moom du waare ak lu tax mu war a waare ñun ak diw ñoo fi nekkoon démb tey dem na comme waarul Alaaji Ndaw dootut la waar kon ñëwuma kiir ngir fàttali leen ne day am na parce xam ngeen ko duma wax it neen bàyyi wante xel parce que xam ngeen ko euh, li may wax mooy ay point yu bari ndax sëriñu nandite yi suy wax nandite yi képp la war a waxal te nandite benn sonn ci mbokk yi képp ñoo sonn nen di bàttale suñ bopp ndax kenn xamul kañ ngay dee fan ngay dee ak nan ngay dee yonentu yàlla suleymaan alayhi dafa dawal ba ci dëkk mu wàccee suñ waxee wàccee ci wolof in modern wolof wolof bu ñu moderniser mooy gaare benn place benn kilifa janax ñëw ci moom na ko suleymaan maa ngi lay nuyu maa lay dalal man kilifa janax yi fii sunu kër la ñu dëkk ci Paris dama ñëw ngir feddali suma kóllëre ak yow ndax ñoo bokk borom mu yàlla sa diine ji gëm neen ko ak dina dénk suma njaboot gi ndax kenn moomu boppam Souleymane na ko jërëjëf yem ca janax am fulla lool duggaat ci pax mi ak njabootam naka ñu tëdd di nelaw janax yu ndaw yi génn matt seen buum yi dagg lépp te saa day yàq lépp bi bër setee ñu julli ba pare Suleymaan ne nen leen takkaat dem mënuñoo takk benn fas ndax bagage yëpp janax yi lekk neen ko mu ne lii lan la ñu ne ko janax yee ko lekk mu ne wool leen ma janax bi janax ñëwee Suleymaan na ko ayow jaaxal nga ma di démb yaa fi ñëw nuyu ma ndokkel ma dénk ma sa bopp yaag sa njaboot sa njaboot def lii mu ne ko Suleymaan waa man dama tuuti ba matuma jaam yàlla Suleymaan na ko déedéet mu ne ko dëgg la yàlla tànn na la def la xalifaam ci kaw suuf waaye ndax danga rëy ba ëpp ko jaam yow danga doon moroomu yàlla yonent yàlla Suleymaan na ko naawuzu billaahi min zalik loolu de amut man ab yàlla la mu ne ko kon bi ma la dénkee suma bopp ci kaw modeste yow da nga ma waroon a dénk sa bopp suma njaboot ñu bàyyi xel sa njaboot ak sa alal waaye danga nga rëy yëg sa bopp foog na yaa ko toll ba dénkoo ma sa bopp ma màndu ci suma njaboot ñu def jéye ji Souleymane na jug leen ñu dox dem yàlla daf ñu fi indi woon pour waar ñi li ma bëgg wax rekk mooy képp kuy jub na nga am koo wóolu ne maa ngi jugee fii fii laa jëm ci kii laa jëm nit du ñàkk ku mu wóolu ku wóoluwut kenn jubut waaye nit ku jub ku ne dina am koo wóolu nit ku xelam dal noo koy xamee mooy sa xel dina am ci kum dal waaye inna ba'da zanni ismun nit ku wóoluwul kenn koo wax mu ne doomu aadama wóoruñ moom wóorut su dee boo jógee nit xam na foo jëm boo fa amee benn waxtu dana la gëstu bu la yëgee waaye tey liberté gi ñu nekkee mun a toog semaine kenn du xam fu ñu ne bu ñuy woowee ku ñu neex lañuy ñuy jël suñuy dem duñ tàggu kenn ne dañoo am suñu liberté dineen dee ci place ñaari fanta nit du ko xam njuum te dana dal doomu aadama ñàkk yar amul problème sax caay problème ak fësal koog wane ko foo ko war wane liberté baax na lool waaye liberté dëgg mu ngi commencé ci ñàkk liberté kon li ma bëgg a wax mooy neen am civilisation boo xam ne bu ñu dugg ci oto sax dineen message ni na ko maa ngi dugg oto maa ngi jëm barab sàngam boo yeggee na yegg nga ka nga yegg na yegg nga dara du la dal te xamuñ ko waaye bu fekkee ne am nga duraaw ñaar fukki fan wala 24 hours ñaar fukki waxtu ak ñeent nga toog ko place te kenn sañut laa wax ana ak foo nekk bu la jéeyee dalee mën neen koo ñàkk xam loolu dama bëgg nit ñi dund ñu jàng ci loolu na àdduna moom bu dara xewee xew na rek waaye lañ cay jàngee not yañ cay jël mooy the most important kon not bi ma bëgg nan tey noté mooy lépp looy def yëglul tàggool ña la doy ak ña nga wóolu wala ña nga bokkal muy benn ñaareel ba bépp doomu aadama buy dund war nga li ngay def ci àddina boo dee war nañ la caa tagg yenn saa nag nga yëkkati kàddu mu doon kàddu yu rafet yu ñu war a jàng ñu ñaawal ko waaye man Cheikh Ahmad Cissé wax daal ne bu ma deyee su ma dëj bi neen ma tegal Pape Diouf mu woy ma ñu door ma suli ndax bi may dund daf ma doon woy mu may neex kon su ma deyee warumaa bañ loolu ku fi fecckat boo deyee neen la feccal fecckat yi neen la sang nen ànd ak yow gunge la du gàcce ku fiy jàngkatu xasida boo deyee na la jàng xasid na la jàngkatu xasida yi sang defar la jullee la du gàcce ku fi musicien boo dee na la musicien yi wër sang la jullee la wéyal la lu neex sul la du gàcce ku fi mbër boo génnee àddina na mbëri ñëw bàkku takk sengoor yi ne bu ma deyee su ma dëj bi neen ma tegal Pape Diouf mu wéy ma ñu door maa suli ndax bi may dund daf ma doon wéy mu may neex kon su ma deyee waruma bañ loolu ku fi fecckat boo deyee neen la feccal fecckat yi neen la sang neen ànd ak yow gunge la du gàcce ku fiy jàngkatu xasida boo dee na la jàng xasid na la jàngkatu xasida yi sang defar la jullee la du gàcce ku fi musicien boo dee na la musicien yi wër sang la julle la wéyal la lu neex sul la du gàcce ku fi mbër boo génnee àddina na mbëri ñëw bàkku takk sengoor yi waaw fruit yi ngemb suli la du gàcce ndax yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne keroog bi suuf si yëngatoo yëngatoo bu bi dana yëngatu ba biqati lépp lu dekkoon ci biir suuf si doomu aadama saa yu jaaxle rek laaj question doomu aadamay taxaw naan waa lii lan su keroog bis boobaa suuf si mooy wax ak yéen ne bi anna rabbaka waxalaha seen borom bi képp moo ma digal lii may def man suuf su keroog bis boobaa dineen catégorise nit ñi into different category ngir lan li yurawa amalahum fa man yamal misqaala zaratin xayran yara wa man yamal misqaala zaratin charran yara alquran la su boobaa nag tiktokeur yi dañuy toogee boor toppkat yi toogee boor commentaire yi toogee boor fenkat yi toogee boor njaalokat yi toogee boor fecckat yi mbër yi musiciens yi jàngkat yi alquran yi sujjóotkat yi waaye da gis koo xam ne dafay nekk ci métier dagg garab mu génn àddina ñu ne ak a yiw ak a baax ndax suñ bopp la ak oyofal mbon ak jegeel mbon man d'accordum néew ma moo baax de néew ma moo jub de néew ma loolu leen war a def dama ne man d'accorduma kenn ku ci nekk daal la ngay dund war na la doy dal sa xel ba boo génnee àddina ñu yóbboo la noonu tàggoo la noonu waaye di dund naanum soow nga dee ñu ne ah ak a bëgg yàpp xawma kan la ñuy nax lépp ngir sukkandiku ko ci xaddis bi yonentu wax ne suñ xamalee nit lu ñaaw bu dee neen ci noppi waaye nag dama ne diine ji den ko war di moderniser bokk na ci ku am jabar léegi balaa ñuy takk war nañoo indi bilan médical ndax góor ñi tooguñ wéruñ jigéen ñi tooguñ wéruñ te jaamu yàlla warta jurug lor waaye léegi war nañoo defit ku dee rek ci la nga nekkoon ñu defee la noonu tiim sa néew bi fecc fecca fecc ndaat saay cagin yëngal yëngal ba mu baax ñu jël suli su boobaa nag ku gis fecc yi jaar yoon bëgg a doon fecckat nga xam ne boo dee dañ lay feccal nga dem nekk fecckat man awma problème ci dara jugé wu ma kenn mais dama ne war neen di assumer suñu dund leneen la ca des euh, man bokk ma woon ci ñu votel sonk ndax gëwma projet bi bokk ma woon ci ñu votel Jomaay bokk ma ci ñu campagne man amaduma Ba laa campagneel démb te ngor googu laay desal ba tey Macky Sall la moom ma doyoon démb ci laay des ba tey waaye maa ngi fàttali rek ne ginnaaw bi ma àndutee nanguwuma nguur gi yàlla moo ko fal te pour sénégalais yépp la maa ngi ñaax la yépp la maa ngi ñaax nguur gi ñu bàyyi xel alalu askan wi sàmm ko ak bakkanu askan wi sàmm ko di leen ñaanal yàlla nag mi nga xam ne moo mën yàlla na leen kattanal dooleel leen ba ñi leen wóolu woon votel leen bu ñu am gàcce bu ñu am déception waaye ñin ñi wóoluwutoon ñu am gàccee ñun ndax suñ gàcce mooy avancement Sénégal li képp la leneen li maa ngi bàyyiloo xel nit ñi <clears throat> bëgg a wax taxuta mën a wax de mën a wax taxuta war a wax wax ndigal la lu nekk ci cour ñu koy enquête muy ñaari dee ku ci taal sa TikTok booy wax seetal la ngay wax seetal it anam ba nga koy waxee seetal na nga koy waxee it's very important eh, leneen li mooy na nit ñi bàyyi seen xel bakkan lu foor la bakkan bu génn àddina nga ciy waxtaan légèrement mel ni du dara ñett rekk laa ci mën a jànge mooy yow waw nga xol yàqu nga ba mën a too yéemu waaye valoriser woo bakkanu doomu aadama bëgg ñu déglu la baax na lool ba there is what we call content creator créateur de contenu waaye senegal ci viwu nit ñi la ñuy wutee contenu dem neen nag ba ci deewu nit ñi la ñuy wutee contenu yal na yàlla musal ñu ci loolu Aziz Dabala mi génn àddina yàlla ko bind yàlla ko yoroon yàlla ko xam yal na dajeeg boromam fekk boromam jéggal na ko maa ngi ndokkeel taalibe Seexu Tijaan yi ci gudd yu foor yu leer yi ñu nekk nga xam ne Baay Ñas dafa waxoon mu ne حلونا منك أترابا وأبدالا وأندابا فمنكم جاء أقطابا فيود بحر عرفاني may yooyu yëpp ñu am ko ci Cheikhou Tidiane maa ngi ndokkeel jullit yi ak Tidiane xaasatan ci laylatul xatmiya ak katmiya waaye di ndokkeel suñu mbokki murit yi yal neen màggali ci jàmm buñ fa jógee yal neen màgg te buñ dëñ di màggal ak a màgg ba keroog bi ñuy dajeeg Seexul Xadim maa ngi leen di wax ne man de ci àddina amut lu paase lu ma rëccu waaye lu weesu lu ne am na not bu ma ci jàng te fakastal yu bari mooy tax a xàmmee yoon ku xam yoon bi dox yàgg-yàgg danga nga yegg waaye yàlla neen doon muridullahi ñu nam ma dem ci yàlla waaye ñu yàlla nam ma dem ci ñoom yàlla ñu yàlla jéggal naatal suñu xel naatal suñu xol sellal suñu ruux yaatal suñu wërsëg yàlla nañu yàlla xool ci mbooloo mam bëgg yaa rabbi maa ngi feddali suba kóllëre ak cheikhu dem ci yàlla waaye ñu yàlla nam ma dem ci ñoom yal nañu yàlla jéggal naatal suñu xel naatal suñu xol sellal suñu ruux yaatal suñu wërsëg yal nañu yàlla xool ci mbooloo ma bëgg yaa rabbi maa ngi feddali suma kóllëre ak Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu di dëggal mbëggeel gi di ko puugarewoo di wan na yëpp ne man bëgg naa Cheikhu Tijaani yal neen gudd fan te lépp luñ bëgg yàlla na jàppandi ci barke mbooleem ku yàlla gërëm fu yàlla gërëm ak lu yàlla gërëm ci barke faatixatul kitaab ca kañ ko wàccee la tax ñu wàccee ko ak leer gi ci ne ak mboolem ku ko mos a jàng te yàlla nangu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi walxaatimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin